والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كن نجي دور تيري بيغا خامني مام لا ني دهالون إن شاء الله مي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ويترب أمصل القاضي أبي الفضل عياط بن موسى اليحسبي رحمه الله تعالى بندكو جمكو حقي يرنتبي صلى الله عليه وسلم أكنكلا جل دي وراء تجنو أكموم صلى الله عليه وسلم borom téere bii introduction bi mu ci def dafa ni alhamdulillahi almunfarid bismihi al asma alladi laysa laysa lahu laysa duunahu muntaha wala waraahu marma sant yàlla mi nga xam ni moo kennu ca kaweem ga yàlla mi nga xam ne amut fu mu yem dara féetew ko ginnaaw وسع كل شيء رحمة وعلما يلا ميغا خامني لب موكو ندر كيب تي يرمندم أقام خمم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما يلا موم موي كي يوني يونتبي صلى الله عليه وسلم soqee koo soqi ko moom yàlla ci ay nit ni moom waaye nag doon ka ca gën gën caa tedd moo xam ay arab lañ moo xam ay ajam lañ wa arjaxahum aqlan wa xilma ëpp ci am xel gën caa teey wa awfarahum ilman wa fahma ëpp leen xam-xam أبلين دق وأقواهم يقينا وعزما قال لنا الدقر أقول يلا أكوك دقو وأشدهم بهم رأفة ورحمة ويقن لنا يرم سخ سين باب معنى يرم تبي صلى الله عليه وسلم مو قن يرم سخ نتني سين باب وآتاه حكبة وحكمة يلا جاكو خرين تيف jox ko ay atte wa fataxa bihi ayunan umya yàlla ubbi ci ay bët yu gëlëmoon bari woon na ku gëlëmoon yàllaa ngi la gindee ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam wa quluban xulfan wa aadaanan summa ay xol yu tëju woon ak ay nopp yu tëxoon yàlla may leen ak dégg ak xam اكو قم بي صلى الله عليه وسلم فامن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعاده قسما نيغا خامني نك نيوكو گم تي توپ كو يونتي بي موي نيغا خامني يالا سدنا لين اك تخي مانام كو نارا تخي رك ديغا گم يونتي بي صلى الله عليه وسلم وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه شقاء حتما نيكو ود نك دو اي ايام موي نيغا خامني يالا بند نا سي نيوم ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى te képp koo xam ni da ngaa gumba woon ci njubug yonantu bi fii ci àdduna صلى الله تعالى عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يلا يلا جولي جمم جولي اموت يم دي مغرق لو لو لوي كو كاو اما بعد فلا يخفى على من مارس شيئا من العلم او خص بادنى لمحه من الفهم تعظيم الله قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني am nga dara خم wala yàlla jagle la dara ci yek yek akuk deg da nga yek yàlla ci bopam ni mu magale dayob yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa khususuhu iyahu bi fadaila wa mahasin ak yàlla ni mu jagle la yonent bi ay ngeenel ak ay tar tar فمنها ما صرح به ما صرح به تعالى في كتابه kitaabihi yenn yàlla da ko te dina ñëw ay aayaat yoo xam ni yàlla daf caa tudd directement ngëneelu yonent bi ak fi ko yàlla teg wa xadda al ibaada ala altisaami yàlla it ñaax jaam ñi ci ñu sàmmonteeg dayob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana jalla jalaaluhu huwa alladi tafaddala wa awlaa yàlla mooy kii maye xéewal te mooy méng ku ko nee xéewal suma tahara wa zakka yàlla moo ko laabal moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam teeyal bakkenam suma madaxa bi dalika wa asna yàlla daal di koy tagg ci loolu kañ ko suma asaaba alayhi aljaza al awfa yàlla tànn ci mayam ya ya ko neex tëbb ko yonentoom boobee salallahu alayhi wa sallam muy ay may yoo xam ne kenn xamut fu mu yem فله الفضل بدءا وعودا كون يالا موم لا ني سانت تيك دور موم لا ني سانت تيك تيك موج وله الحمد وله الحمد اولا واخرى او اولى واخرى فمنها ما ابرزه لي العيان من خلقه امنا تي لو خامني يالا داف كو وانا نييب ديكو غيس تي يونتبي صلى الله عليه وسلم على اتم وجوه الكمال والجلال manam yàlla may gim ko may yonent bi ci ak nite mat gim ci mat ci tar soko de xol way ci mag boko de xol wa min takhsisihi bil mahasin al jamilati wal akhlaq al hamida yàlla ràng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikko yu gëna taru yu gëna mag wa madahibi al karimati wal fadail al adida tëbb ko ay may yu mag wa tayidihi bil mu'jizat al bahira wal barahin al wadihah waaye nag méngu ko tam ay xar baax ay miracle yoo xam ni yonantu musta indi lu mel noonu te boromam xel lu sama xel yaatu yaatu mënoo xam loola lu mu doon rek lu dul mbirum suñu borom la wal karamatil bayina allati shahadaha man asaraha yàlla defal ko ay karamaat yoo xam ne képp ku dund ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga karamaat yooyu moo xam nga am tawfixu gëm ko wala nga ñàkk tawfixu bañ koo gëm ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده ني دوند اك نيوم نييب غيس نانيو كرامات يونت بي صلى الله عليه وسلم واي ني نييو غينا واميت غيس نانكو ناخ جانغ نانكو سي اي تيري موني حتى انتهى علم حقيقه ذلك الينا لوليه ني ديكو دون نانتي با اكسي في نون نيغا خامني نيوم جي نييو وفاضت انواره علينا صلى الله عليه وسلم نينا ليرام يا جولي ba làmbunu ñun ñëpp loolu mooy almuqaddima de laltaay li nga xam ni moom la laltaaye téere bi donte téere bi nag dañ koo wàññi muy almuntaqa min kitaabi shifa bi taarifi xuquqi almustafa sallallahu alayhi wa sallam bunt bi nga xam ne moom lañu ubbil lu ñu yaatal lool ci introduction bi ndax téere bi dafa xaw a bari tuuti te li nekk ci biir yaakaar naa bu ñu ko jàngee xam ko rek dana doy sëkk ci leneen lu ñu waroon a wax lu génn téere bi ndax téere bi jàpp naa ni li ci nekk lépp doy na sëkk ab julit boo xam ni war ngaa xam dayob yonante bi sallallahu alayhi wa sallam war ngaa xam wàccuwaay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngaa xam lan la yonante bi am ci yow bunt bi njëkk bi mooy fi sanaa illahi taala alayhi wa izhaarihi azima qadrihi ladayhi mooy tagg ak kañ gi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala tagg na ko kañ ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ak feeñal gi nga xam ne yàlla feeñal na ko dayob yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni i'lam anna fi kitaabillahi al-aziz ayatin kathiratan mufsihatan bi jamili dhikri al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa addi mahasinihi mahasinihi wa ta'zimi amrihi وتنويه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فهواه وجمعنا ذلك في فصول نانا كيب كو خامني جانغا القران داغا غيس اي يودول جيخ تي بير القران يوي بيرال تارو تودوك جي يالا دي تود يونتبي صلى الله عليه وسلم تي بير القران اك دايو بيكو يالا جوخ اك ييكتي جيغا خامنتاني موم لا يالا ييكتي تي لو خامني جيرول صاح سام جانغ دي خوت pour nga mën koo xam nee na loolu la tànn ci yooya ay yenn buntu rek indil ko maanaam indi ko ci biir téere bi yàlla faslu bu njëkk bi ci bunt bi mooy fii maa jaa min dalik maji al wa sanaa'i wa taadaadil maxaasin tagg gi yàlla tagg yonantu bi tudd gi mu tudd ay taar taaram ak rafet rafetam te moo ko bind kat moo ko moom waaye moo ko tëbb loolu ba noppi wëlbati ko di ko ci tagg aaya bi mu ci njëkk indi mooy aaya bi nga xam ni yàllaa ngi wax naan laqad jaakum audu billahi min ashaitan rajim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نين لقد جاءكم دكنا لين رسول دو من أنفسكم أم نكو جانجي من أنفسكم min anfusikum mu bàyyikoo ci yéen di nit du malaaka du jinne du leneen wala min anfusikum bokk min anfusikum bokk ci ñi gën a tedd ci yéen azizun alayhi ma anittum lu tar la ci moom ci li ngeen di def ci ay bàkkaar xarisun aleykum ku xer la ci yéen waaye raufun rahim ku am ñewante la ku am yërmande la bil muminin borom teer bi mu ni yalla xamal na arab yi nga xamni ci ñom la yalla yonni ñan ñom la yalla yonni kan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam. ndax yaronte bi yalla ko yonni ci giirug arab fa la juddo téré bi mu ko jox di arab nak tekki wul ni ko ci arab yi rek la ko yonni de way nak fofa la tambalé motax sax soo déggee yenn walayen yeeg wala yenn wax yeeg wala yenn hadith yi yonent bi di wax arab yi rek fekk na booba ñëm ci jublu woon mooy lan mooy jullit ñi ndax booba arab yi doo presque ñoo ay jullit waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min ratmi ba ma ma'juja yal di ñel ni arab yi booba yonent bi ñu bëgg wax jullit ñi ndax booba arab ñi presque julli ñi génn ñu won arab yi mom la cheikh al-badawi di wax ci amudi nasab aimatu diini imaadu sunna lisanu ahli al janna manam lim ci jublu won fofu boobu moy al arab waye al muslimuna haqiqatan la ci jublu muni yàlla xamal na ni yàlla yónni ci ñom yonantu bu bàyyi ko ci ñom yaarifuunahu wa yataxaqaquuna makaana يعلمون صدقه وامانته كو خامني كوني خام لا كوني مانا فيريفي لا دو اب جامبر بو خامني دا نان خارال ما لاتي با خام موي كان ولا خارال ما با خام فوم باو يعرفون صدقه وامانته خام نان اك دغوم خام نان اك وورم فلا يتهمونه بالكذب وترك نصيحه لهم لكونه منهم manam buñ ne ki kat ku leen yërëm la yàlla ne kon yéen arab yi war ngeen ko gëm ndax xam ngeen ak njubam xam ngeen ak wóoram xam ngeen ni musta wax lu du dëgg te xam ngeen ni lu bax lu musa am indi ko ci yéen waaw ku mel nii bu xëyee ne leen yàllaa ma yónni waru len ci am sikki sak ndax musta wax lu du dëgg وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة يلا واتكم نكتي وسط العرب جير جنكتي دق أعدلها مي قريش yi nga xam جير يب ينطب أمنا yonent أي أي na قل ما أسألكم عليه من qul إلا illal mawaddata fil qurba Abdullah ibn Abbas nee na loolu li ci yàlla jublu mooy mbokkoo gi ma bokk ak yéen wa kawnuhu min ashrafihim wa arfaihim wa afdalihim maanaam yonent bi salaa sallam ñépp la bokkaloon ndax yàlla du yónni ab doxandéem yàlla du yónni ab doxandéem ndax kon ñu néewal ko doole dañ naan ko bokk dëkkoo ci dëkk bi xamuñu la doñu fi sonal da ngay mëna nopi wala nga ñibbi fa nga dëkk waye ko xamni ay mamam ñom ñoy jité dëkk bi ah koka du neexa génne waaw ànd ak ni arfaihim wa asrafihim boko jangé min anfusihim moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mo leen gën yéen ñep ndax ismatul anbiyaa qabla al mab'ath راي كثير من العلماء بل الجمهور يوم لول لا نيو غيس المعتزله زيديه نين سي المتكلمون يي دا في الانبياء ما دغال نا سي نيوم ني ديف نيومته ليسوا معصومين قبل المبعث افان يال دي لن يوني مات ني وون نيو يامون لول المتكلمون بار المعتزله ني بار لول waaye ahlu sunna dañoo gis ne annabiyu maasuumun qabla almabaasi wa baadahu moo tax yàlla yonent bi daf koo tànn ca avant muy judd sax loolu ma ni nihaayatul madih maanaam kii ngeen di wax arfaukum wa ashrafukum moo leen gën a yëkkatiku bu dee ci aw xeet la moo leen gën a ko budé ab juddu la waye budé jikko yit moo leen gën jën yëkkati yàlla tegal ko ci ay yenen nak aw saafa xamida melukaan yu sant wa asna alayhi bi maxamida kathira bokku na ci hirsuhu ala hidayatihim wa rusdihim li islamihim manam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci liko yàlla tag ci laye bi moy xër gi mu xëron ci ñëpp jup xër gi mu xëroon ci ñëpp dugg ci lislaam xam ni yitteem yëpp moo doon na ñëpp dugg ci ak lislaam mu sacrifier boppam ngir ñëpp dem àjjana waaye yàlla teg ci ni moom lu ngeen def ci lu leen nar a yàqal ci àdduna ولا الاخر داي ملني موم موكو ديف عزيز عليه ما عنتم لب لو ني ديف داي ملني موم موكو ديف ناخ بغول كين جوم باي ديم سوارا يالا جوخ كو نياري تور تي اي تورم تي تور يالا رؤوف رحيم رؤوف رحيم يونتي بي كو ام نيوانتل تي يين waaye ku am yërmande la ci yéen sallallahu alayhi wa sallam yàlla delluwaat wax ni laqad manna allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim joojee ba tey yàlla ne laqad manna allahu yàlla xéewalal na ñan ala almuminin id jamono ba nga xam ne baasa fihim rasulan min anfusihim موخاني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وخاني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم صلى الله عليه وسلم للبدء أي آية يو خمني يا الله داي ولاني كما يوني كيف سين بير لبك موتاخ نيوم نيوم سخ لول دال دال دال لين أنزل عليه الذكر من بيننا loolu mën naa nekk ñu tànnale yow rek suñ biir yónni la te ñun yónni yónni wuñu te loolu gëne loolu daan wax a unzila alayhi dhikru min baynina nga tax nun daal mënuñu laa gëm abasharan na maanaam nit comme ñun déedéet ñoom daal malaaka lañ bëgg dañu wax ni yàlla wàccel malaaka daal ndax bëgguñu daal koo xam ne ñu mel ni yàlla ne ah te ngeen bañ a bu malaaka ñëwee du baax ci yéen de yow ma yaranal malaaikata <laughs> laa busraa yow ma idin de lil mujrimiina wa yaquluuna xijran mahjuura bu malaaka ñëwee du du baax de leen toskara de waaw riwaaye nañ jële ci aliyun ibn abi talib radiallahu anhu ci wax jim ni min anfusikum mu ni nasaban wa sihran wa xasaba nee na yonent bi moo leen gën aw askan gën leen ñu mu ak ngoromle gën leen ab juddu mu ni laysa fi abaihim min ladun aadama sifaaxun kulluha nikaax mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul ci samay bàyyi koo xam ni lu dul ni ci yoonu takk la juddoo la arab daan def ceddo ko daan ko def xam ni fu waay jaar rek fu la neex jaar yonte bi leen man ëmmo musuma am maam ju jaar foofu abdullah ibn abbas ba tey nettali na ci wax yàlla jëm ni wa taqallubuka fi sajidin mu ni min nabiyin ila nabiyin ila a hatta akhrajtuka nabiyan wa taqallubuka fi sajidin ji yàlla di wax ci alquran yaakaar na sortu suara la nee na liñ ci jublu mooy jóge gi nga jóge ci yonant yonant bi ay maamam yonant yàlla ibrahim yonant yàlla ismail ba ni ma la génne ngay doon yonant ci càllale bu tedd rek la la yàlla jaarale sallallahu alayhi wa sallam mu ni waxat zayyana allahu taala muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi zinati rahma yàlla na taarale yonant bi ci taarub yërmande fa kaana huwa وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق نينا مبولم ملكان يونتبي اك جيكوم ييب يرمان دي لا تي خيت وي تي نيت ني صاح موني يالا نغي وخني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ني يونتبي يوني وما لا لودول nga nek yermande ñeel nit ñep fa kanat hayatuhu rahma wa mamatuhu rahma dundam gep yërmande la won même fatom sax yërmande la ndax yonente bee ko wax nee hayati khairun lakum wa mawti khairun lakum nee sama dund gën ci yéen sama fatu it mo gën ci yéen ndax nee na ida araada allahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyaha qablaha fa jaalahu laha faratan wa salafa ñëw na saxi muslim ñene na yàlla su bëggee yërëm aw xeet day jël ab yonantoom yonantu bi jiitu leen ca yàlla nekk faratan lahum nekk salafan lahum wépp xeet woo xam ne sab yonantoo la jiitu xeet waaw yaakaar lu la waaye wépp xeet woo xam ne yaa jiitu sab yonant foko fek xet xeet buñu alak rek la xet yi alak alag yépp mooy xeet yi nga xam seen yoon du leena jital ndax dañ leena woñu lànk waye xet wo xam ab yoon to mako jital moy fiha khair xet wo woowa aw yiwa ngi ci motax ñom ño am al al baqa bépp xet wo xam seen yoon te fi leen bàyyi rek da ngay gis ni xet wo ba legi ñuy ñu ngi dundu yonte yàlla Moussa yonte yàlla Isa donte dina ñëwaat lislaam waaye wépp xeet woo xam ne ab yonente da ko jiital rek moom fale seen mbir di yem moom xaw mu luut seeni mbir gis nga bala ñu luut jiitalee ñu dem rek la seen mbir geex ak ñeneen ak ñeneen Samarqandi dafa wax ni rahmatan lil alamin nee lil jinni wal ins wa qila li jami' al khalq jinne yek nit ñek mbolim binde fi yorontu bi yermande won ci ñom rahmatan bil hidayah ñi nga xam dañoo gëm yonte bi mooy yërmande ci ñoom ndax moo leen woo ci kër gu leen yóbbu àjjana wa rahmatan lil munafiq bil aman min al qatl nafiq bi nga xam ne dafa dugg ci biir kippaaroog l'islam <coughs> wane nit jullit la ki ko may sécurité mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam wa rahmatan lil kafir bi ta'khir al azab même yefer bi sax di dund ak bi tawedd feel feeg bi ngi dund garantie la ci ni mbugal dan dal xeetu njëkkee du len du len dal wa ma kana allah yuazibahum wa anta fihim wa ma kana allah muazibahum wa hum yastaghfirun manam yàlla du len buggal mukk azaban amman comme nim dan def jek jek rek buur ab dëkk fek yaa fi muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam garantie la ñoo ñu weddeeg ñu gëm ak ñëpp ngi ci biir wa ma kana allah muazibahum wa hum yastaghfirun yàlla du len buggal fek ñu gi jéggulu yàlla kon am nañ al aman min al azabi ñaari aman amaanaani al amaanul awal moom dem na moy nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu biir bay al amaanu saani nak la zaala baqi moy lan al istighfar yàlla tudde na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lul ben benn du ñaar du ñett ci al qur'an tudde ko nuran leer wa sirajan munira mu nekk nuur nuur mooy leeru ak siraaj mooy leer gu àndul ak tàngoor diyaa nag mooy lan comme li ñuy sourate anbiya ci sourate diyaa an lil ci souratul anbiya nu ngi ko waxe wala qad aatina muusal furqaana wa diyaa an wa zikra ها للمتقين لن موتخ يالا واخ لول يونت بي صلى الله عليه وسلم تديكو مانام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه صلى الله عليه وسلم يالا يد واخ كونيكو انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نور وسراج an nur wa siraj moy leer gu àndul ak tàngoor moo tax di melal jant bi qamaran munira qamaran munira parce que leeraayu weer laa bëgg a wax wer wi yalla su koy melal dana qamaran munira wer wu leer ndax lan ak leeram amul tangor waye suy melal jant lu mi wax ah dhiyaan mom la jox yonent yalla musa lutax moy leer wu ànd ak tàngoor ndax yontu yàlla kam dajelon di firaw na maanaam faw fokk ñu tàngal ko fokk ñu tangal ko di firaw na tàng képp moo mu meuna a nit tax koo nek nit sax waye banu Israël tam dañoo doonoon xeet wu dëgër bopp woo xam ni faw dayee am rek maanaam leer na de waaye faw de ànd ak tàngoor gis nga wurus maanaam foog ñu dugal ko ci lu tàng rek tëcc mu doo ko rafet ndax yàlla lim nettali ci banu israil ci xeetu dëgër bopp banu israil yàlla dem na ba wax ak ñoom ñu dégg ko ñu wax Musaa ñu ko arina allah jahratan dama bëgg nga wannu yàlla ñu gis ko banu israil yàlla bëgg leen a atte ci atte bu gaaw wa id xaltatum nafsan fa daaratum fiha wallahu muxrijun maa kuntum taktumum ngeen rey bakken yàlla ni rey leen aw nag rek ñu ni déedéet inna allaha yamurukum an tasbahu baqara rek xoolal nakira la yàlla nee na ngeen rey nag qaalu atattaxiduna huzwa ayow Moussa ñun amub dëj nekk ci ay problème nga ni jéem a kokkali ak dañu fontoo dañu wax ay nag yu ñu rey yooyu qaala audu billahi an akuna min al jahilin ni man yooyu nekkuma ci bu jëloon aw nag rek rey ko coow lu jeex ñu ne udu lana rabbaka yubayyin lana maa hiya waxal yàlla mu wax na wan nag qaala innaha qaala innahu yaqulu innaha baqaratun laa faaridun wala bikrun awaanun bayna zaalika faf'alu maa tu'maruun du màgget du nag wu ndaw wu nekk seen diggante def leen lim leen di wax xoolal loolu déedéet ud'uu lanaa rabbakum bimaa lawnuhaa da dangay wax yàlla wax nag bu mel nan la qaala innahu yaqulu innaha baqaratun safraau faaqi'un lawnuhaa tasurru naaziriin nee leen nag wala woo xam ni wu jaune la te ngeen dee nag wu jaune woo xam ni ku ko gis kontaan ba tey taxul ñam de ادع لنا ربك ما هي ان البقره شابه علينا wa ان شاء الله لمهتدون وخال يالا رك مو mu نك وي نوي wi دغ دغ رك دا نكو ديف قال انه يقول انها بقره لا ذلول تسر الأرض ولا تسقى الحرس مسلمة لا شيء فيها قالوا انا جئت بالحق فذبحوها وما كنت وما كادوا يفعلون إذ قلت نفس دوغ جو خولال دغر بوب غوغ خولال بنو إسرائيل فين جارا فرعون فرعون جاب لين دي راي yudabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum ndax inna fir'auna ala fil ard wa jaala ahlaha shi'an yastad'ifu taifa Segregation. ku bok ci partem lula neex def ku bok fe bo defé dara ñu door bo deful dara ñu door bo bëggé def dara ñu door bo xalaaté ñu door dañuy door ku def di door ku wax di door ku bëgg def di door ku bëgg xalaat xam dañ lay door ba paré nga né luma def ñu la da nga doon bëgg xalaat def la gaff الجبروت يدق يلا جن لن تلولو وجاوزنا ببني إسرائيل فأتبعهم تسورة الأعراف بدأ بقل بنك يونس فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم دون وقت قالوا يا موسى جعلنا لنا إلها كما لهم آلهة خم قالوا لسرين به لو تفاهم ñoom xoolal fi ñu daje Firawn ñu dem génn amuñu du ñuy wax lu dul Moussa dañoo bëgg nga defal nu yàlla te ñoom li leen dal li dal Firawn lépp mooy am jeneen yàlla yàlla génne leen foofu ni leen dem leen ngeen dugg Palestine nekk fa ci jaamu ñu ne déedéet idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'idun demal ngeen xeex bu ngeen gañee ñun ñëw doo ko dugg xam nga loolu lépp moo tax diya moo baax ci ñoom waaye ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag siraat muniir leeraayu weer boo xam day ànd ak sedd sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla na qad jaakum dikk na leen min allahi jëkk ci yàlla nuurun leer ñu ne mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kitaabu mubin ak téere bu bir inna arsalnaaka yónni nañ jëwe muhammad shaahidan ngay teewe di seede xeet wi ëllëg ak tey wa mubashiran di bigle bégle wa nadiran waaye wa daa'iyan ila allah bis ni wa siraajan munira ay arsalnaaka siraajan munira leer gu amut tàngoor leer gu amut tàngoor moo tax yàlla ni ni ko alam nashrah laka sadrak yàlla ubbi dënnam yonente sallallahu alayhi wa sallam شرح بمعنى وسع يالنا يعني ما ياتل سب المراد بصدر هنا القلب يالا يعني ما ياتل سب يا محمد الم نشرح لك صدرك ndax yaataluñ sa xol ba nga attan yan bi ndax yonent bi liñ ko yanoon كن كو يانون تي واجالو لا نغا نغا نغا نغا اغ سوف مات عبد الله بن عباس ني شرحه شرحه بنور الاسلام يلا ياتال خلو بيونت بي صلى الله عليه وسلم تي لير الاسلام سهلني بنور الرساله قال الحسن ملأه حكما وعلما يلا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك maanaam lépp loo xam ni luy laal nit la ci manquéem lu jiitu yàlla di la yónni yàlla faxas ko ba mu set wicc jéggal la am ñu wax liñ ci jul mooy siqala ayaamil jaahiliya parce que ayaamul jaahiliya lu nekk ci amoon ati ceddo yi yonent bi dund na ca lu nekk loolu lépp yàlla dafa ñëw raxase ko ak lislaam am ñu wax ni dedet yàlla daf ko wax ni ko ma maa fal sa ginnaw ci yanu l'islam ma la ko yanal ma la ko téñal wa rafa'na laka dhikrak yàlla neen ñu yëkëti sa tur bin bu wati yàlla yëkëti tur yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam idha dhukirtu la yàlla wax dhukirta ma'i wa haythuma dhukira allah dhukira nabi sallallahu alayhi wa sallam في الأذان والإقامة والشهادة كيف يقول الإسلام لا إله إلا الله موقع يمن أقول دي فانغتك محمد رسول الله بوالي نرد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سؤال اللقام كذلك كان يلا قرن اسمه باسمه صلى الله عليه وسلم في ارفع المقامات تي دايو يغنا مك يغنا تد في نيت دي دوغ الاسلام في نيت دي ووتي تي جولي في نيت دي تخاول جولي فوفو تود يالا دي فتود يونتبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرا ñu yëkkati sa tur loolu kenn ku dul yonent bi amu ko lii yàlla moo ko saxalal yonent على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه ndax mag gu yonent bi mag fa mom ak daraja ju reey jëmu am ca mom saraxa qalbahu lil iman wal hidaaya mu yaatal ab xolam ci gëm ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam fa la ngëm yam njub ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam fa la njub yam wa wassaahu li wayi al ilmi wa xamli al hikmah waye mu yaatalal ko xolam bi ba lépp luy xam-xam yàlla sol ko ci waaye alxigma it wa rafa anhu umur al aljahiliyati aley waye lépp luñ ko bëggona a yan ci choono rek yàlla wayfal nako wa baghadahu li sayriha wa ma kaanat alayhi bi dhuhur dinihi ala din kulli يالله سبحانه وتعالى بني لو يونتي صلى الله عليه وسلم لب لوي نين واي يكتي دينم بام فيت دين ييب كاو واي حتى عنه عهدة اعباء الرساله يالله نينكو ما ويفال تونا يونت خمغا اك يونت دا فا ديس يونتي بيكو يالله دي يوني موي نيو جزيره العرب مكه اك ليكو ور نياتا نيت لا نيون ñaata lañu woon kenn nit képp moom yàlla ni ko ñépp nag nañ nañ tuub ñépp nañ jub mu tàmbalee ci boppam ci ñan ci boppam mooy lan ak njabootam wa anzir ashiratakal aqrabin mu tàmbalee ca moom loolu la ca daj loolu lañ ko ca wax abu lahab ni ko ali hadha da'utana yow muhammad magi jëm say bay say mam nga woñu amoo loñu wax lu ay yalla ñu yonne yu ken xamul way tabban lak yalla nga alko yalla ne tabbat yada abil hab tabbat yalla nga alku yow abil watab wa tab ma aghna an lepp lo am dula dula jarñ wa jabar jabar ja nak jabar jaa nekkoon ci gina duro moy kan hamalatul xatab يعني أنا أقول لك دنا على سند البير صورة في جيدها حبل من مسر والعياذ بالله ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته كان أمرته مو جميل مورن كان حمالة الحطب ولا حمالة الحطب يعني ابن كيوخ والله المستعان نعم لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه لول لب يالا مكو جغل يونتبي صلى الله عليه وسلم قتادة دفعني رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة يالا مو يكتي تور يونتبي في أدنى وعي نغي نول لكو يكتي فلي الآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قتاد نين كيب كو خطبة ولا غاي تايا ولا غاي جولي نينا بوني لا إله إلا الله كوجاتك محمد رسول الله ورا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نينا يونت تبدا دا أتاني جبريل أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول ولئن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي يعني جبريل دفن يو من ne ko sama borom ak sa borom نمي يكتي سوتور ndax xam nga lu ma yëkkatee saw tur mu ne ko yàllaa xam mu ne ko yàlla lim yëkkatee sa tur mooy fuñ ma tuddee tudd la fuñ la tuddee fuñ ma tuddee man yàlla tudd la yàlla yëmut ci loola de waaye dafa dem ba lënkale topp topp ko moom yonent bi salaa sallam ak topp yàlla والرسول توب لين يالا اك يونت بي واو العطف جيغا خامتاني لي لمطلق الجمع لا للمشركه واو الجمع جمعي واو العطف المشركه لولو امول كين كوكو ام كودول كان يونت بي صلى الله عليه وسلم ركب كوي جيم يكتي ak ku jema jéem ba yaronte bi sallallahu alaihi wa ak si rek baye bo nga baye bo nga def nank te xamni borom keur gi ñew na buñuy buñuy tag surga yek waaye da fek borom keur gi ñewul na waaye borom keur gi ne surga yëpp dañ daal ag àgg l'islam moy keur gi borom keur gi moy muhammad sallallahu alaihi wa ñi fi nek ñepp di liggey ay jëwriñ ak surga ku nekk moo lay wax fooy xëy comme ni bul xëy doo xëy mooy xëyloo gaa yi moom la yàlla jox maanaam ndigal loolu sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jox pouvoir boobu ku xëy te xëyloo wala sam xëy du baax su ne ko jékkoon jékkoo rek sawar dem di xëy di bay ca tool ba te néew la xëyal fii wala xëyal fee da ngay bay ba ngoon ñu la li nga bay dara baaxu ci nga ni waaw man sonn naa ñu waaw parce que kenn xëyloowu la loolu mooy biddaa mooy di dem te def te kenn santu la da ngay dem ba sonu liggéey ba sonu ñu la waaw yow day pour nga fayeku problème la nga ne la ñu parce que borom tool bi moo la gul yow da nga xëy te xeylo wu la waaw yonent bi moy xeylo gaay yàlla nak moy fay do lañ ko ci xoseyfata ibn yaman radiyallahu anhu muni لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان لول fulan loolu mu waaw maanaam tey bu nit ni woon bu neexee yàlla wa rek day mel ni moo ko yàlla yem waaye nag bu ni woon bu neexee yàlla summa mooy bu neexee yàlla ba noppi nag ku muy doog neex doog am kon yoon yàlla bi mu wax nii wa atiu llaha wa rasulu te waxul summa rasulu aminu billahi wa rasulihi la wax waxul aminu billahi summa rasulihi وقل أطيع الله ثم الرسول واي واو لو اني بخني لي مطلق الجمعين غير قمني ومن يطع الرسول فقد اطاع الله كيف كو توب يونتي بي يالا غا توب نخ لان دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نا يونتي بي دو وخانت نيما ووتا وخ لوكو يالا واخول تي دينه ديدت لوم وخ يالا كوكو واخلو kon kuko top yàlla nga top kuko moy yàlla nga may alxataabi dafa wax ni arsadahum sallallahu alaihi wasallam ila al adab fi taqdim mashiati allah taala ala mashiati man siwaahu waxtaaraha bi summa allati hiya litaraaxi bi xilaafi lwaawi allati hiya lil istiraak nee na yàlla dafa yar jullit ñi ci boo bëggatee wax lu jëm ci coobare xam nga coobar yàlla am na ko waaye may na ci nit wa ma tashauna illa an yasha allah maanaam lu leen soob muy foog foog foog ko day soob yàlla ba noppi ma shita kaana wa in lam asha wa ma shitu in lam tasha lam yakun خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسلم على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن faminhum shaqiyun wa minhum saidun wa minhum qabihun wa minhum hasan nee na mu jëfandikoo xarafu summa bi nga xamante ne diggante yi faw am lu gudd lu fa dox waaye boo ne woon bu neexee yàlla ak diw day mel ni ñoom ñaar ñooy defandoo wala seen coobar ñooy ànd loolu nag wax yonent bi la waaw fa kay fa nag xam day bu neexee diw rek na yàlla xam ne bi li mu tere nga naan bu ak diw yonent bi li mu digle mooy bu neexee yàlla ba noppi doo ko neex diw ci loo xam ne nag diw am na ca coobare moo tax ñuy wax ci loo xam ne diw am na ca coobare waaye am na loo xam ne diw da amul coobare te mooy yi nga xam ne yàlla képp moo ko man yooyu kenn du ci dugal nit yi nga xam ne yàlla képp moo ko jagloo jago kenn du ci dugal nit waaw fa kay fekkee naan nag bu neexee diw ndax bu njëkk dañ daan bu neexee yàlla ak diw mujj ñu naan bu neexee diw rek yàlla na leen diw fay bu ci coobaree diw ay waay xanaa kooku moom xamu leen ni moom mbindeef la yonent bi ba nit ñëwee ni ko macha allah wa shita dafa téye loo bi ne ni ko ajaaltani lillahi niddan qul macha allahu waxda ba nit ñëwee ni ko bu neexee yàlla neex la mu ne ko waaw xanaa da maa bëgg a def moromam yàlla waxal bu neexee yàlla dongu kon bu neexee diw moom erreur bu mag la ci wàllu pas-pas bu neexee diw ah déet waay loolu kenn du ko wax dogal ci loxo yàlla la nekk moo tax am na ku mës a ñëw di taggaate rek di taggaate ba àgg ci yonent bi naan man yuti llaha wa rasulahu faqad rachad wa man yaasihima rek yonte bi ne ko taxawal bi sal xatib bi sa xatibul qawmi ant qum ku leen mooy mu boole leen ñoom ñaar kariha minhu aljamaa bayna al ismayni bi xarfi alkinaayati lima fihi min altaswiya maanaam ku topp yàlla ak yonantu bi jub na ku leen mooy ñoom ñaar loolu min tilqaai nafsihi la ko wax loo xam ne mën naa lënt yonent bi ni ko bul jàpp ni maag yàlla nag danoo yem déedéet ndax loola tasfiya mën na ci am lëndëm lëndëm mën na ci am kon ginnaaw yonent bi may loolu ci boppam ci cërub yàlla bi waaw lan moo tax ma di ko may keneen wala keneen di ko am sax ndax yàlla mooy maye léegi nit ñi fan la ñuy bëgg a basé wu ci loolu boo leen ko lee tere dañ naa la xéewali yàlla yi yaatu na yàlla mën naa maye lu nekk buntu boobu kenn du ci werante yàlla mën naa maye lu nekk ah kay waaye ndax yàlla day maye lu nekk déedéet yàlla mën naa maye lu nekk ah kay waaye ndax yàlla day maye lu nekk parce que baabul imkaan moom waa si boo ci bëggee dugg sañ-sañu yàlla ak may yàlla bu dee foo nga bëgg dugg foofu amul fu mu yem maanaam nit sax mën naa ñëw kon li ko yàlla digal lépp mu bàyyi ko li ko yàlla tere lépp mu def ko boo xam ne est-ce yàlla daf maa munta baal motax babul imkan mom boko ubi sa ubbi amul fum yam waaw bo waxe ñu may yalla gi amul fum yam deug la kay waye ndax yalla li may ngi di lan di lan di taxna na mu maye am na lo xam du ko maye yàlla mën maye di nit jaamu xërëm ba dee mu dugal ko aljana yalla mu tamay lol ha ah? ah kay waye est ce que dina ko def yalla len dama ko def inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha iblis ba mu ñëwee fekk ab jaamukatub yàlla jàngul amul xam-xam mu ne ko ndax yàlla mën naa dugal àdduna bi yépp ci am nen mu ne ko loolu mënut a ko iblis reetaan ya koog de weddi mu ñew fekk borom xam-xam di jangale mu ne ko ndax yalla mën na duggal aduna bi yëpp ci am nen mu ne ko inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man gis nga inna allaha ala kulli shay'in qadir kon nit ki bu muy demee wax buntu ba mom reer ci dafa yomb moy luñ la wax rek nga daldi koy bëgg tek ci yalla man na lepp aha kay yalla man lépp waye nak ndax yàlla def na lépp am man na lépp waaye deful lépp kon loolu mooy buntu bu njëkk bi incha allah dañ koo jàppoon comme ab introduction rek ab muqaddima suñu ñëwee nag doog a dugg dëgg-dëgg ci biir téere bi hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain wa rabbuna allahu taala alamu wa nisbatu al ilmi ilayhi aslam